entité bu nek entité bu nek amna ay nit yu fa nek amna ñu ko fa téwal ak ñu fa nek am fa ay responsabilités am ay responsabilité yu mag ñu fa yor. donc à travers ñom à travers ñi ñooñu. souvent ñoon lay communiquer. ñooñu lay communiquer. directement directement. ak agent yi. ak agent yi mu wàcc ci nga xamni ñom la bëgg waxal. mais dama bëgg ngeen japp ne. mais dafa bëgg ñu japp ne. kër gi kër gi kiko sanc ki sanc. wax limu bëgg. ak limu wax ak limu wax. moy nañu bolo nañu bolo nek ben nek ben jiitu dafa metti jiitu dafa metti te yalla mu ngi suturaal te yalla mu ngi suturaal yalla nga ba entité yi fi nek yëpp ba entité yi fi nek ci kër gi yëpp ñoo jiitu ñëpp ñoo jiitu te lolu lolu liko waral mënu ñu ci wax mënu ñu ci wax mënu ñu baña delo njukkal mënu ñu baña delo njukkal ñi nga xamante ñi nga xamne moy ñi fi nek moy personnel bi fi nek tay représenter représenter les 500 à 600 cent les yu nekk ah six cent lañu man <laughs> de la fi baye la doon de kon naa ngi ci 600 machallah macha allah

kon dama bëgg ngeen ñaanal kon dañu bëgg ñu ñaanal ki nga xam ne mooy PCA. yàlla may ko yàlla may ko fan bu gudd lool te na gër. may ko wér ko njabootam may ko wër may ko dugub. yéene bi mu am. yéene gi nga xam ne Youssou Ndour am na ko. teg ko suñu loxo teg ko suñu loxo bii. ñu mottali ko ñu mottali ko ak yéene te bañ a bañ a am gàllankoor. waaw yéen daal ñun daal. li ma bëgg ngeen xam li ma bëgg ñu xam. ngeen jàpp ko nañ ko jàpp. ngeen bañ ko jàpp ngeen bañ ko jàpp. sama xol ngeen nekk. suñu xol si biir xolam lañ nekk ñun tamit yaa ngi suñu xol waaw nee du de. du tricher. du de. du ma wax du wax ku ku ñun. relation. relation personnelle ak yow. parce que liggéey bi. parce que liggéey bi. parce que temps bi passé ensemble. temps bi passé ensemble. Mo ëpp temps bi passé suñu famille wax ko. donc donc. Futur Média. Futur Média. famille la. famille la. ku ko jàpp. ku ko famille la. famille la. ku ko jàppul. ku ko tamit. ngi maa ngi di gërëm mu ne mu ñuy gërëm. di sant di ñu sant. gërëm boo xam ne gërëm boo xam ne. am na début am na début. waaye walaay amul fin. Hmm? amul fin amul fin. man aw ma seen nee na moom de amul suñu fay. nee nañ jën. nee na doole jën. ndox ndox. dooley DG. dooley DG. employé la. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. man tey. moom tey. xëy jiitu. xëy na moo jiitu de. prix bu jotee. prix bu jotee. man lañ koy jox moom lañ koy jox. mais chaîne la. mais chaîne la. famille la famille la. ku nekk rek. ku nekk rek liggéey bi ngay def. liggéey bi ngay def. mooy tax mooy tax. man may rayonné moom muy rayonné ci kaw. donc man mun mënuloo def lu dul. lu du def lu dul. gërëm leen yéen gërëm ñu ñun. sant leen sant ñu. delloo leen lépp delloo ñu lépp. ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu borom. yéene bi ñu am yéene bi ñu am. nga xam ne nga xam ne. képp kuy agent GFM. képp kuy agent GFM. ku la gis ci mbedd mi ku la gis ci mbedd bi. naw la naw la. loolu mooy sama yéene kër yi taxaw na. waaw kër yi taxaw na waaw kër yi taxaw na loolu bilaay yaa ngi arrosé loolu nekk suuf ndax ba lu la nawee fekk la sa kër ñu ne cité GFM xam naa yaa ngi koy xalaat. super étoile ci biir rajo bi ci biir imprimé biir plus de 1000 agents tase ci benn site dana neex eggalil. Ah, looloo tax andi daw. looloo tax andi daw. parce que loolu presque sotti na. parce que loolu sotti na surprise la. yàlla yàlla bu ñu si cat. yàlla bu ñu cat ay waay cat ngir yàlla dimbali ñu. bu ci dugg. yàlla yàlla bu ñu cat. yàlla bu ñu cat di waay. te yàlla nañu yàlla dolli sutura. yàlla yàlla dolli sutura. te lépp li nga xamante ne. lépp li nga xamante ne. sumb nañ ko sumb nañ ko. yàlla nañ ci am ndam. amiin yaa rabbal aalamiin. amin waay amin waay yàlla na ñu gàllankoor seexlu yàlla na ñu gàllankoor seexlu lépp luy yàq liggéey lépp luy yàq liggéey lépp luy féewale ay nit lépp luy féewale ay nit te yàlla nañu musal yàlla nañu yàlla musal si loolu yàlla nañu yàlla musal si fu mu xajul rek yàlla na seytaane. waay se yàlla na seytaane. seexlu GFM seexlu waa GFM yàpp. amiin yàlla na yàlla gën a defar xol yi. yàlla na yàlla defaraat xol yi. lii lii dafa neex. lii dafa neex yombul de. ku nekk mënoon na toog. ku nekk mënoon nga toog sa bureau. yónnee ma message yónnee la message. wala nga woote wara nga woote.